les réponses apportées par Insa ibn Mariam et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la construction de ce pays lii mooy débat de fond bi ñu wax lii c'est pas un délit bu ñu bëggee répondre dañu répondre par des arguments mais pas par des par des emprisonnements parce que mënuñu téye loolu mënuñu téye donc ñu génnee waat ma janvier ma def déclaration en fin février ne damay def sama candidature à l'élection présidentielle parce que euh, il était question d'aller déjà à poser le débat autour de la gouvernance de l'islam dans ce pays-là lii moo ñu yóbbu ñu élection présidentielle euh, bëggoon déjà présent ci échiquier politique bi muy benn mais ñaar poser un débat bi xam ne ñu koy censurer muy le débat des valeurs parce que ñu bëri koy fàtte di wax ci ko économie kese mais dañoo fàtte valeur poser le débat de la gouvernance le débat de l'éthique le débat de ñu yore a yoree penc mi ci wàllu l'islam li la ñu bëggoon def Sénégal ma prévoiroon ne gars en avril incha allah début avril bu président defee discours ba pare naa def sama tournée nationale pour mën a euh, structurer waale une bonne fois notre parti euh, préparer les parrainages. je participe ci élection yi man Macky bu fekkoon sax ma bàyyi ma dem bokk ba ba yor yëpp déposé spolié naa xam ne Macky kon daf ma daf ma Macky may na ma chance sax comme ñeen mais man j'ai été je je n'ai pas été chanceux dañ maa jàpp tere ma def tournée malgré cela on a essayé. sama gars yi ils ont essayé malgré les maigres moyens malgré beaucoup de choses jël naa fiche c'était la la fiche 206 dem nañu uti parrainage ci biir Sénégal on a eu des parrainages on a eu des milliers de parrainages man su may xool le le stock sax ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo doon joxe parrainage ëppale naa parrainage yi nga xam ne dem nañu déposer conseil constitutionnel mais nag sincèrement ñun nous nous voulons sérieux man munu ma mënu ma d'accord toog aw ma 30 000 parrains ba pare ma jël dossier dama ko yóbbu conseil pour mën a faire genre. donc c'est pas sérieux c'est pas respectueux et c'est pas honnête ñun nous sommes pas dans ça moo tax ñun on n'a pas déposé de dossier pourtant Dieu sait que suñu neexoon am ay parrainage ndax ay nit approché nañu dañu leen suñu bëggee ñu joxe ay parrain parce que yéen war a bokk yéen valeurs yi ngeen di wax yéen débat bi yéen si war a bokk mais ba tey par principe loolu on l'a refusé parce que man mënuma d'accord ku jub di parrainer parrainer Modou Diop ne Modou Diop laa bëgg mu bokk ci présidentielle Modou Diop war ma jox parrain yooyu ma koy jël di ko déposé man pour man loolu sàcc la loolu c'est pas sérieux c'est pas honnête pour man loolu wor la damaa wor sax kooku nga xam ne ba muy signé signé lu Cheikh Omar Diagne mais Modou la signé j'ai pas accepté le parrainage me suis résigné à savoir que suñu offre sénégalais yi comprendre guñ ko et que on a du temps parce que tamit une révolution ne se fait pas en deux jours il faut du temps il faut nit yi xam la la ñuy wax ñoom ils vont se le ñoo koy doxal seen bopp lii moo tax après bokkuñ ci élection yi waaye nag taxul ñu bañ a bokk ci élection ci biir loolu on a eu le temps de d'observer euh, le débat public de voir les candidatures objectivement ñu toog di gëstu di xool gaañi mais loolu moom wax dëgg yàlla bëgg naa ko wax fii mu nekk lu leer du mbiru copinage du mbiru farfarloo ndax Pastef am na candidature yoo xam ne bu ko présenté woon dama man diw mooy nekk sama candidat soo baa ñun dañuy mujjee nër du ñu faral waa Pastef ndax ñun nag euh, ñun par principe la jëfee le candidat Bassirou Diomaye Faye ñoo sax mën a andi ay seede ci moom ndax nit bi nga xam ne lu mat di mois yéen a nekkandoo yéen ay ndékkendoo yéen yendoondoo yéen ay julleendoo yéenay waxtaan chaque jour matin et soir kooku wax dëgg yàlla am na loo xam ci moom am na tamit loo gis ci moom voilà un nom très équilibré maanaam man gëm naa ne Sénégal na am chance trop bu amee président bu tudd Bassirou Diomaye Faye nit gënu ko jub c'est une personne structurée une personne d'une rare intelligence wax dëgg yàlla une personne bi xam ne qui a des idées claires xam na fan la Sénégal war dem il est conscient des enjeux nit la bi xam ne wax dëgg yàlla naw naa ko ci fréquentation bu ndaw moo ko fréquenté un homme pieux un homme très pieux ku ku ku bàyyi xel diineem un homme très responsable wax dëgg yàlla su ma waree toog di expliquer euh, les qualités yu nekk si Bassirou Diomaye gëm naa ne man kon du ma fi jóge tellement c'est un homme pétri de valeur un homme wax dëgg yàlla euh, il me manque des mots pour mën a pour mën a joxe dëgg-dëgg kan mooy joxe xam naa ne Sénégal nag xamuñu ko liggéeykat dëgg la man chaque jour mu ngi ci ay projet ci ay xalaat ci seen programme ñoom programme passif Cheikh xool ma nangam. comment tu trouves nangam di leen jàpp naa bi bu ñu ko defoon nangam mooy gën dafa am bi xam ne qualité bu am solo si leadership mu nit ki xam ne malgré xam xeebul xam-xamu keneen dina nangu déglu la dina nangu jël sa avis te dina nangu jël incorporé ko loolu je vue vu en loolu depuis 2011 gisuma ko woon ci Macky moo tax Macky na m'a jamais charmé. xamoon naa ni kii du déglu kenn xel bi xelu baadoola la baadoola fa am lu muy doxee baadoola nawul kenn te nangulul kenn donc très tôt xam naa waa ji fi mu nar a dem ak fi mu nar a jóobu réew mi mais Diomaye est à l'opposé de Sall situation nag wax dëgg yàlla lu ma lu may méttitu ndax ba léegi mu ngi ci kaso ba post Facebook bi nga ne post boobu ku sax ñu la waa ji depuis dix mois et quelques mu ngi ci kaso ba war ngaa ree ndax euh, poste bi déjà su waroon nekk délit sax c'est un flagrant délit parce que lu bind lu ne weng la lañ ci enquête y a pas d'instruction à faire écrit di nga di nga tooñ mu ngi nii ci ci poste bi lay jël yóbbu la flagrant délit atte bu jaree teg ay daan teg lay daan mais quand on en instruction on a une volonté de te de t'isoler une volonté de te casser may may leeral nag mag yi di ko wax ne ko sérieusement da ngaa juum da ngaa juum ndax ñi nga jàpp majoritairement wala boog sax totalement ñoom ñëpp il sont incassables man dama gis gars di dugg di gën a dëgër ba may nekk cap y avait de jeune de Pastef yoo xam ne ñoom ñëpp dénominateur commun ils n'ont rien fait seen bopp koñ nga toog yor sa bracelet Pastef nga ne la ah, nga ñu ne waaw ñu jàpp la yóbbu yóbbu yóbbu kaso yow da ngay manifester nga ne non manifester maa ngi doog a wàcc dama doon liggéey ñu la ah waxoo dëgg da ngay jàpp yóbbu kaso tous ces jeunes là am na si ñoo xam ne bokkuñoo sax passif kaso la ñu passif kaso dañu ne comme que dañu ñoo ñu andi ñu sax léegi ni ñuy def ba bokk gaa yi da ngay jënd carte ñu ne ñun bokk nañu jënd carte jënd bracelet donc Macky erreur bu réel def avec ces rafles là qu'il a fait man rafle yi nag xamoon naa depuis le début que monnaie d la bëgg def le stock de prisonniers bu mu Nous, on est conscient de ça. moo tax depuis les prisons gars yi ils sont pas du tout d'accord gars tappale yi gaay yi di wax si yëpp nekkuñ ci gars yi génn nag toog kaso la ñuy yemale loolu foog ma koy xam ko li mu def nii erreur la nag génnee ñëpp maa ngi gis ni am na ñu génn mais vraiment c'est dafa insignifiant par rapport ñu nekk ci kaso bi ñu tooñ leen toroxal leen gàddu seen ak téyeen ci kaso bi donc ñu ngi ñu ngi koy ñu ngi koy feddali ñaanuñu ko nag Macky Sall ndax ñu dañoo def lu ñu ci kaso bi mais na génnee doomu jàmbur ak jëkkëru jàmbur yu mu téye papay jàmbur yu mu téye c'est même c'est même nit ki nga jàpp doomu jàmbur papayu jàmbur liggéeykat nga téye ko teg ko kaso pare yow ngay wàcc chaque jour dem di seet sa njaboot nekk say doom di foog ñoom li c'est lâche man lii comment une personne peut le faire pare quitte avec sa conscience donc euh, Bassirou Diomaye ñu ngi ko jàpp dafa def outrage à magistrat man délit bii sax dama gis sa un délit qui est parce que outrage à magistrat kat nan la ko outragé ban magistrat la outragé Bassirou naa énoncé turu personne yemul ci loolu soo defee outrage à magistrat magistrat moo koy constaté magistrat daf lay jëbbal benn mbokk magistrat pour mu àtte la mais délit bi il n'est pas juste mun naa commencé nga tooñ kenn une personne neutre war la àtte mais la corporation soo moo lay àtte délit bii délit bu ñu war a xoolaat la donc mayee lu wax nag ne voilà une personne qui qui qui qui vit dignement sa prison dégg naa fi benn chroniqueur temps yee buy tappale télé yi na eh, am na ñuy jooy ak am na bon man xaw man fekk moom nag heureusement gisuma koy jooy kat man yoon ñu fa nekk ñëpp ay nit yu digne lañu ay nit yu sérieux ay nit yi xam ne ils vivent avec avec piété et fois seen incarcération ñu si bëri toog foofu ak génn la ñu ndax ñu ngi def ci toog bi li nga xam ne bu ñu nekkoon ci biti mun am bu ñu ko def naa fay xale yu bëri yoo xam ne commencé fa jàng alxuraan ñu amoon ñu fa daara foofu ci biir kaso bi créé fa suñuy daara chaque semaine ñuy wàccee ñaari yoon kaamil dañuy séddalee jukki yi ku nekk jël ay jukki ba si Bassirou Diomaye fay day jël ay jukk jàng ko andi bosam ñu koy séddoo di ñaanal dëkk bi ñoom Cheikh ndeysaan xale yu baax ndeysaan ñoom ñëpp ñoom ngañ ñoom ñëpp àndandoo ñu jàng alxuraan chaque mardi ñu xatmu chaque vendredi ñu xatmu alxuraan déjà lii tawféex la ñu si bëri si ñoom bañ nekkee si daaw ñu ko def am si ñeen ñee xam ne mënuñu woon sax liir alxuraan daara ja foofu ñun jàngal leen liir alxuraan ñu ngi commencé téye alxuraan di ko liir maa ngi siy nuyu ñoom Babacar Ndiaye.